waaw comme ni ñu taxawee ci komba góor a taxaw combat ñoom Franc taxaw ci combat ah. boo yëpp yore combat doo leen taxaw ci combat Modou pousse ko vers la victoire aussi ah moom na xam ne daal ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi koy ñaan yàlla ko yàlla defal ndam quoi. waaw ah, di la wax ne yow it fan nga toll si combat yi fan. waaw ñun ñu nu déglu rek ñu ngi déglu quoi. yàlla na yàlla